soxna Dior Amsa di responsable politique nekk ci Touba di def liggéey bu am solo ci wàllum social ak politique di jàppale président Macky Sall soxna joor àndoon ak délégation bu takku demoon nemmeeku ji mbootaay soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier Maqaaril Azna ci Touba nekkee ci yoonul njuxul bi bi mu agsee mbooloo mu takku mi nga xam ne moom la fa fekk ñu accueillir ko accueil bu kawe lool mu Moustapha Seck di responsable APR ànd ak soxna Dior Amsa di leexal soxna yi nga xam ne moom lañ fekk ci maqaaril azna yéene bi nga xam ne soxna joor am sa moom la am ci ñoom. li nga xam ne nag mooy suñu sababu ñëw fii di ànd ak soxna joor am sa mii man maa nga dëkk ba jaanatul maxwa di def politique ci dëkk bii di jàppale son excellence président de la république Macky Sall soxna joor mii di sama sœur ñëw di jàppale président de la république Macky Sall yàlla boole ñu ak mbokku deret wëlbatikuwaat sama kilifa doon kilifaam. ñu bokk kilifa. ñu bokk genn kilifa. loolu moo tax suñu ànd yaakaar naa ni dara du ko mën a xajamal. loolu mooy sababu ma déplacé wu ñëw ba agsi fii ànd ak moom ñëw seet soxna meer lay mii ak soxna Ndey Ba. ak soxna moomi Silla. ak yàlla dafa def soxna Joor. am liggéey bu am solo bu ñu ko war di liggéeyloo ci dëkk bi mu jëm ci soxnay Touba loolu nag li olof di wax bay ci sa wew tànk mm-hmm. bu fekkee ni dafa am lu ñu ko war a liggéeyloo fii te ki ko ko war a liggéeyloo di président de la république mu war koo commencé buñ ko déggee feneen te dégguñu ko ci koñ bi nga xam ne si nii mooy koñub kilifam su boobaa danañu accam loolu lay daw moo tax mu taamu leen yéen ñi nga xam ne yéen ay dëkkandoom bu dee màggal yéen lay gis bu dee gàmmu yéen lay gis leneen lu mën di soxla it yéen lay gis kon mu choisir taamu fi ubbee fi ab liggéeyam. mboolem mbootaay soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi nga xam ne moo di Makaaril Aznan noppi nañu ngir ànd ak soxna am sa ci liggéey bi nga xam ne moom lay defal président de la république fii ci dëkk bi ndax ñoom nee ñu sóobu nañu te duñu dellu ginnaaw. te soxna joor fi nga dal neex na li nga def ñorut dafa ñor tab bi kenn gësamu ko barke Serigne Touba Mbacke ñun jeng dàq nañu ñoo amoon xotti seeni i këyit ba nu bandoon nañu yàlla ak yow a tax yaanu ko jaral. barke Serigne Touba ñun ak yow ba des gi géej gi des wala dañu koy naan soo dawut duñu daw ñun amba en arrière soxna joor am sa di ko sant di ko gërëm di ko defal lépp ñun nag ñoo ngi lay ñaar ñun ñett sunu jikko la duñu xam bàyyi duñu miin fag duñu ànd ak kenn di ko war nun ku nu bàyyi rek yaa tax daa def lu tax nu bala te ñun nag jox nan la sunuy loxo boole suñuy tànk jox la ko barke Serigne Touba Mbacke danañ karaate danañ box danañ yuqamtal te danañ wéq ndax sa jëmma ñu ko jara barke Serigne Touba Mbacke waaye li nu bëgg mooy ku nu jàppale nu liggéey di liggéey nag ba mu baax. dégg nañ ko bu baax a baax a baax yàlla dogal na président de la république Macky Sall. ak ay waa këram yii nga xam ne dénk na leen li jëm ci liggéeyub jigéen ñi ñi ngi ciy góorgóorlu seen kéem kattan am na lu ñu ciy doxal fan yi muy lu aju ci ay projet yoo xam ne si ni li ëpp ëpp ci projet yi ci jigéen ñi la jëm lu toll ci 150 milliards de francs CFA danañ ko génne ci 2021 bii nii ñu nekk loo xam ne si nii la ca ëpp ëpp ci soxna yi la jëm bu doon sax ñun góor ñi dañ ko am ñeen fukki at bokkoo ci waaye soxna yi amul limite soo xasee am 18 ans ba keroog ngay am 100 ans soo bëggee bokk nga ca muy DER di promise di FONSIP projet yooyu ku ci bëgg bind soo bindoo bu yàlla dogalee lenn sa wërsëg nekk ca danañ la ko financé ndax soxna yi ñëw ko yëkkati ci ñoo ko moom ca ñoom lañ ci bëgg dimbali ki nga xam ne dafa soxla 200000 ki nga xam ne dafa soxla 1 million ak ki nga xam ne dafa soxla 3 million ba ki soxla 10 millions kenn ku nekk xam nga li nga xam ne si ni mooy soxla yaay dem fañ koy bind nga bind ko fa ñun au niveau de notre service muy fi ñu nekk nii ak ànd kook soxna joor la ñu ca man bu ñu ko jotee danañ ko ca def bu leen ko déposé ba pare bir na ma ni soxna joor am na ay relation yoo xam ne si nii bu yàlla dogalee ngeen def seen demande yi ba noppi bu leen ko tegee ci loxoom su boobaa la ca war lépp dana ko def ginnaaw waxtaan wi soxna joor am sa jébbal na mbootaayu soxna yi benn enveloppe bu def ay koppar yu takku ngir jàppale leen ko ci seenub liggéey ginnaaw bi dafa fa délégation bi bàyyeekoo ngir dem ca Belel di dëkku Serigne Abdoul Ahad Mbacké soxna joor am sa fekkaat fa mbooloom soxna yu takk lool ñu dalal ko fa dalal gu kawe te rafetlu ñëw gi nga xam ne ñëw na ko ci dëkk bi. ku ma àndal ku ma xam mën na laa dimbali te jóg waaye dafa bëgg a dimbali jigéen ñi ndax jigéen ñi sonn nañ lool ñee nga ca waas ba tubaarkalla ñee nga ca njaayam cuuraay mi. laaw la cet ñii daal kenn ku ne looloo yaakaar ne boo ko defee am ci ñaar dërëm rek ña ngi koy def jàmbar ngeen ay gaynde ngeen soxna jooram sa dégg loolu nag sama sëriñ yor ko mu bëgg sëriñ am sax bëgg ay taalibeem bëgg dëkkam bi di tuubaa Belel mu jóge Touba Belel ñëw Touba Belel dis gor nag di koo xamante ni bu jàppee du bàyyi te bu ngeen ko jàppee yéen waa Touba Belel di ngeen ne ki ma mos tey bokkut ak ma daan mos ndax dafa riis bu yàgg boppam taxu koo jóg de day dimbali jaam ñi ndax tubaar kàlla fi nu jaar bari na ñi mu dimbali bari na ndax yërëm jigéen ñi. nun nag dañu am fu ne buñ xamee looy tax a jóg mu gënal lu fi ne ñu ba ñooñu ñëw ci ndax lu defal dëkk bi dong mën a ñor ndax ay kuréel ñoom na fi. Touba Belel jëf jël am na fi tabaxal nañ fi hôpital bee def nañ fi ay tabax nañ fi bari ay yeneen yeneen yoo xam ne ñu ngi ko fi def politiciens yi nag bari nañ ci dëkk bi ñu fiy ñëw politiciens yi bari nañ ñu fiy ñëw waaye kenn ku nu amal njariñ gisaguma ko fi dama koy wax ca kaw kenn koo xam ne amal njariñ gisaguñ ko fi ñun nag buñ xamee fi nga jëm mu gënal fi ne ñu bàyyi koo ko topp la soxna joor am sa fas yéene am fii beleel base politique bu dëgër ànd kook mboole mbootaay soxna yi nekkee ci dëkk bi association yi góor ñi ak leader yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngir jàppale fi président Macky Sall. yàgg nañ maa wax nañ dem bale nañ bel dem bale waaye bi ma ko soxna si waxee laaj parce que bëgguma fee digge loo xam ne ànd ak nit ñu ni ñoo fi digge woon dara duñ ko gis dëgg la waaye xam naa kii li mu diggee moom incha allahu rabbi lu paase tey di ngeen ci gis ay résultat ndax moom du ma ko ci bàyyi incha allahu rabbi wax ju bari di jaru ko fii kenn moomu ko képp ku ngeen gisal nga am seen njariñ ngeen jàpp ko ku ngeen amulul njariñ bàyyi leen parce que wax ji bari na naxaate ji bari na dafa dafa doy daal dafa doy bi daal dafa doy bari nañ naa nga te ñëpp seen intérêt bopp donc la ñu wax képp ku leen jàpp naa leen di wax ju bari jaru ko bu leen mënut a jariñ bàyyi leen bu ngeen dem seeti keneen waa loolu dong la lépp lu ma xam ne njariñul belal la dina ànd moom indi ko fii incha allah rabbi du ñàkk te di ngeen ci gis seen bopp lépp lu mu leen digee fii incha allah da ngeen ko gis man maa leen wax loolu du ma ko ci bàyyi sax su ma ko waxul dara sax dina ko def incha allahu rabbi di ngeen xam ni mi ngi fi soog a ñëw di ngeen gis résultat yi du yàgg incha allahu rabbi kon ku may àndal di fi ñëw yàlla day def day doon koo xam si ni moom damay am ci moom yaakaar ca xam ci moom ak dëggu te loolu mi ngi ci moom loolu la président de la république xam moo tax mu dénk ko mission ni ko dama bëgg nga demal ma Touba jàpp leen ma jigéen ña boole kook première dame Marème Faye loolu mooy sababu mu ñëw Touba am pas-pasu liggéey fii ñu fas ko yéene ànd ensemble te liggéey bi ñuy liggéey bu buñ ko liggéeyee ca tudduñu ci Touba Belel su boobaa liggéey ba dana sooxe ndax sëñ Amsatu la yaakaar sëñ Amsatu Touba Belel la dëkk sëñ Abdou Lahad la yaakaar sëñ Abdou Lahad fii la wàcce àdduna fii la liggéey la sëñ Touba ba génn ba génn ba génn àdduna kon képp koo xam ne si da ngaa bokk ci kër gi lu toll ni président de la république di la liggéeyloo te yàlla def ñëwoo ca dëkk bi ca nga bokk ci kër gi su boobaa waa kër gi war nañ la xeebat loolu nag daluñu loolooy ñu jël suñu oto ñëw Touba Belel ndax soxna si dafa am lu may wax dani ma man sëriñ Amsatu moom ma yor damay politique sëñ bi daray politique moom nekku ci waaye aayewu ma politique aayewu ko ñeneen ña ko jiitu sëñ bi moom politique yoonam néew ci mais nag moo soisir Touba beleel bëgg fi def baas politique am ndax it Touba gee mu nekk mën na ko fa am sëriñ bi am na fa koñ politicien yaa nga fa bari na te mën naa buuxante mais dañoo bëgg a ñëw ba fii ci Touba Belel nga xam ne fii la sëriñ bi doon liggéeyale yàlla ñu ñëw sos fi suñu base politique góorgóorlu am fi résultat bu boobaa danañ ci amaale ngërëmul sëñ bi loolu mooy suñu sababu ñu ñëw di waxtaan si ak soxna yu Touba Belel yii nii nga xam ne si nii ñoo fi dëru boobu wax sëñ bi nekkee ba sëñ bi tegee ba léegi loolu mooy suñuy tànk ginnaaw waxtaan wi soxna joor am sa jébbal na mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi benn enveloppe boo xam ne ay koppar moo ci nekk ngir jàppale leen ko ci mbooleem liggéey yi nga xam ne ñu koy def waaye it fas yéene leen taxawu wan leen yoon ngir ñu jot ci financement yi nga xam ne moom le président de la république jagleel soxna yi. wax ji mën na bañ a gudd lool soxna si bi muy ñëw yëkkati woon na ab lim ci ay koppar ni su ma àggee sama mbokk jigéen ya ma fay fekk. ak seen càmmiñ yi leen jàppale dama leen koy nuyoo bu ko defee ñu tàmbalee ko ab waxtaan daloo ko ab waxtaan bu yàlla dogalee ñu delluwaat ndakaaru dem rendre compte président wax ko ni ñu bëgg a lépp loo xam ne sii nii teg na ko ci loxoom dana ko indi fii Touba Belel du dégg du ngeen dégg fenn mu séddale te seen wàllu jotu leen ci ndax dañ koo liggéeyloo ci jigéen ñi te ay soxna ngeen te réew mi kenn ëppalewu leen ci soxna am Amsa nag nii rek la ko fas yéene jàppoo wàcc sur le terrain liggéey liggéey bu am solo ngir jàppale président de la république jege askan wi taxaw ci seeni soxla.